aywa salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajafal yéen a ngi ci GCB info ci seen émission bu mag bi di dongali di fi am dimanche ju nekk bu waxtu yi jotee ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu nag mboolem ñi composé làmb promoteur amateur supporter mbër ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni leen dee leen ñu topp ci émission bu mag bi di dongali ndax yaakaar naa ne lépp lu war a reer leer jëm ci làmb bu ngeen ñëwee fii ci émission mag bi di dongali dina fi leere incha allah ginnaaw loolu nag euh, lu jiit lool sax bu ci kanamee tuuti incha allah bu vingt heures jotee euh, GCB dina fi def benn émission bu am solo ak euh, kii di bu Diop ak benn oustaz lu jëm ci mbirum Ousmane Sonko waat jii nga xam ne moom la ko xale bii di Adji Sarr di waatloo ak lu ci aju maanaam lépp luy lu aju ci mbir yooyu bu dina ci ñëw invité fi benn oustaz kon na ko ñëpp kar bu vingt heures jotee incha allah mais bu lool lépp passé nag ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal comme ni ñu waxee di nuyu waa làmb am benn xarit boo xam ne nii mu ngi kolobaan seen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar dama koy côté nag seen rek laa ci mën a yem ndax sama wóllëre la sama sëriñ la sama jarbaat la sama lépp la di jàpp ci émission bi ndax léeg-léeg mu fàttali ñu combat yoo xam ni xëy na euh, ci yu nu fàtte woon la tey bu tey neexee démb tax kon ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal tey nag ñoo ngi ci buntu studio GCB war a def introduction bi fii daa di yéeg nag dem ci studio ba àggalee fa émission bi tey moom ay chronique la ñuy def maanaam ay jàngatu làmb la ñuy def comme que làmb ji incha allah ubbi na barki démb le 19. yaakaar naa ni semaine bii di ñëw dina fekk combat yi démarré bu ñu duggee ci biir mën a indi jàngatu combat yi ak euh, naka la ñuy liggéey ci biir saison bi incha allah xam naa damay wax sama caméraman mu topp ma rek ñu daal dem ci biir studio bi àggale fa liggéey bi incha allah mais ginnaaw loolu nag ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu bu baax baax sunu sunu vraiment euh, auditeurs yi. benn xam naa nag tey moom invité surprise laa leen indil bàyyi Assane Mesra assan maa ngi lay nuyu Assane looy naan nii kafe naan maa ngi lay ziar. kon yow da ngay naan café waaw Baye Fall nga nag moom mais est-ce xam nga ni tey yow laa invité sama émission. man mi ah xam nga dongali waaw dongali yow laa invité tey léegi tegal sa kaas si suuf tegal kaas bi ci suuf waaw kon naanal kaas bi xam naa ni jëlal sa micro léegi nañu ànd dem sama plateau bu ko defee. tey ay révélation yu am yu doy waar laa bëgg ñu waxtaane ko Baye Assane seen xelu mbër mi moom jaaxal na ma de mbër yi ñu bëri nee mbër yi dañoo dof non xoolal bul dugg ci détail yooyu nag yaa ma évité waaw maa la évité mais nag euh, nañ wax l'essentiel rek attention de mbër yi ñu ngi lay dégg de Baye Assane est émission bi site bi mbër yëpp a ci abonné waxuma damay jot appelu mbër yëpp ñu vraiment ñu ñuy remercier ci ni ñuy liggéey nañ dem waa nañ dem suñu plateau mbër yi di wax amuñu ko ci ay combat yow mii man pertoon nga sa ginaar da ca Tafa euh, euh, kii di Tyson waa non mujj naa jot ndax biñ ne ah, tey daw nañ jàppante. waaw attention Moustapha Gueye daan na ko Tyson daan na ko. Mhm. sunu jëwrin mi ngi may dégg. Mhm. après def delloo ku ne ginaaram. mais Assane yow mi ma doon mbër nga woon nii yow mi man maa la nañ dem suñu plateau nañ dem sama caméraman na ma topp Assane tegal kaas bi bu ko defee ñu ñëw ci suñu plateau bu yanj bi hmm? xam ngeen ni GCB vraiment day liggéey te liggéeyantul nag dañuy liggéey te kii liggéey mënut a booleeg euh, kii kii caaxaan Assane Exil. kon mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen euh, vraiment euh, sunu introduction émission bi euh, doon leen présenté waale rek ni leen xamal leen ni leen ba léegi nii ñu ngi ci ay réglages pour naka la ñuy entamer saison bi ndax yaakaar naa ne saison ren bi ñu bëri demoon nañ ba amatuñ ci woon yaakaar ndax corona bi duggoon ci réew mi. ak it aussi gis nga li fi xew lu bëree bëree bari jaar ci Sénégal ak yu bëri di fi jaar manifestation yi fi jaar fan yee passé ñu ngi ñaanal yàlla ñi ciy gaañu ñëpp yàlla leen yàlla yërëm te ñaan yàlla jàmm am Sénégal ndax mbokk yi damay faral di wax jaboot jàmm moo ko jig ndax lépp lu di def rek defe ko bànneex rek daa fekk nga am jàmm kon nañ ñaan jàmm jàmm moo ñu jig sunu réew mi réyul bëriwul réew moo xam dañuy 16 millions d'habitants am na àdduna bi foo fay dem taxaw ni Sénégal dëkk dañuy laaj fan mooy Sénégal kon Sénégal réyul nañu ñaan jàmm ci suñu réew mi ndax moo ñu jig di wax jàmm ñiy wax luy taal réew mi nañu seral loolu lañ leen di ñaan sunu njiit yi surtout suñu njiit yi comme ni ñu ko waxee nag ñu ngi dugg ci saison bu doy waar saison boo xam ne nii ay combat taxaw na ci am na yoo xam ne combat revanche la combat jànq am na ci ndax gis nañ Mamadou Lo kii di Ama Balde taxaw na ci combat boobu combat jànq la Ama Balde bëgg a dab yi Mamadou Lo muy combat royal nag mais gis nañ kii di Eumeu seen ak euh, ndaanaan bii di la de Guiers taxaw na ñu war a bëre trois fois ak yeneen ak yeneen ak yeneen Moustapha Tine Boy Niang taxaw na ci combat yu mag gis nañ combat Diène Kaïré ak xaleb Thiès bi di Modou Anta taxaw na ak yeneen bu ko defee dañ ci ñamali rek waaye semaine prochaine incha daan gën a xuus bu làmb ji ubbee nag émission yu bëree bëree bëri stade lañ koy defee kon ginnaaw loolu toom ko tey Assane laa invité sama plateau euh, maa ngi lay nuyu Assane. maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax di la jaajëfal tey moom vraiment yow laa invité xam naa ni surprise la ci yow nag ndax yaa waroon a monté ci ngoon gi direct yu bëri yaa ko waroon a assuré mais ma dugg ci studio bi rek euh, invité la nii xam naa yow du ñàkk aussi loo mën a wax ci làmb ji wala loo ci xam te bëgg ko jàtt jàllale mbokk yi waaw noonu la xam nga rek euh, li nga def noonu it macha allah dañ koy rafetlu rek si émission bu mag bi dongali yàlla dogal na macha allah maa ngi si doog a teew tey. Mm-hmm. di ndokkeel nag ñi nga xamante ni jaaragul nañ fi ñëpp moo xam mbëri Sarkoog Tafatine mm-hmm. sëñ Falloog euh, di nuyu Sawru sunu sunu xarit. sunu sama conseil la Sawru Fall. Sawru Fall ñu ngi koy siyaare baax di siyaare waa groupe baax mm-hmm. di siyaare mboolem koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel émission bu mag bii di dongali ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax. waaw euh, Baye San bu loolu paasee combat yi taxaw ni yow ban combat moo la ci gën a neex. combat yi taxaw ni de benn neexaguma ci moom. benn neexagu la ci. ban mu ban nga bëgg mu taxaw. na fi mu ne nii wax dëgg yàlla làmb ji daa ko fàtte woon. danga fàtte woon làmb ji lan moo tax nga fàtte woon làmb ji. làmb dafa kii rek dafa nu mu tuddati. dafa la noonu. maam dafa comprendre ma quoi làmb daal damaa jékki-jékki rek mel ne xamatuma daal comprendre tuma daal. maanaam crise bi dugg ci réew mi la wala wala keskiya ce qu'il y a. waaw man xaw ma bi la xaw ma mouvement yi ñu taxawal la xaw ma mbootaay xaw ma mais làmb daal wax dëgg yàlla. Mhm. nekkatul si bopp nit ñi daal. xaw nag mën nañoo fexe ba mu nekkaat suñu bopp yem déet léegi yow tey boo doon conseillé waa làmb ak ñi ŋànk réew mi ak ñi ŋànk sport Sénégal ban conseil nga leen di jox pour làmb mën a nekkaat seen bopp yi xanaa ñu tëgg combat si farata di bëre si farata lan mooy tëgg combay yi ci farata maam combat yi da gis tëgg ki ak kii jekki-jekki bàyyi ko tëgg kii ak kee jekki-jekki bàyyi ko mbër yi bu ñu leen bëree ñii di mag si niil ñii di tappale mais maxi niil ci làmb la bokk yow bëri maxi niil da daan maxi niil giri bëri doo ama bu njëkk ba ba bëri teppeeku loolooy bëri waaw ah, loolu contexte lamb ji moo ko laajoon ndax boobu combat revanche la woon boo fàttali ko 2004 Gris Bordeaux Eumeu Sène dañoo bëree woon bëree bu metti ca stade Demba Diop gis nga jël ba ko Gris daan da koo daw maap Eumeu di ko déclenché mbot Gris maap ko ñoom ñaar ñu ànd daanu ci saako yi biñ leen boolee waatee yaakaar naa 2013 su ma juumul wala boog 2012 gis nga ni ko Eumeu Sène def keroog bakkan bi la tay ci stade bi ba ni mu daanee Gris Bordeaux dafa am yoo xam ne nii maanaam combat revanche la daanaka bakkan lay laaj am combat yoo xam te te olof nee na nag Assane bala ngaa ñamati bala ngaa yabati góor ñam ko mbër boo ko xamul aussi à 100 pour cent doo mën a ñëw rek soobu ci moom. Mhm. làmb ji daal politique bi moo ko yàq. mbër yi dañoo war a bàyyi politique. mbër dañuy politique. mbër yëppay politique. ah lii nga wax ni tuuma la de. Gris Bordeaux mi may dégg na ma yóbbu si yoon. moo ko wax yow da ngaa gis Gris Bordeaux di politique. moo moom si boppam. mais Gris Bordeaux si mais ay citoyen lañ am droit politique. mais politique bi def ñoom. ngi dégg muy ñuy attaqué ministre bi te xamuñu ni ñoom dañuy politique ñoom Gris moo toog TFM daal maa ngi nii maa ngi ànd ak diw Balla Gaye ni leen yéen yéen ay def nangam ñoom ñu bëlbati ko naan ministre bi ne bu ñu fontoo ñun gis ñu si politique mu ngi ànd ak diw c'est diamétralement opposé ak diw moo doon toj non non xam nga ànd moom. mbër yi ay waaw déglu rek. man dama la xanaa man maa teg sama bët. élection yi mbër yi di ànd ak ak ñi nga xamante ñooy ñoo ñooy ñooy candidat yi jiitu yor ay yat ak i liif ak lépp. mbër yu ndaw yi la. non mbër yëpp nga naa ma ay ay mbër yëpp ñii nii ñoom ñëpp dañu ànd ak gis nga Balla gay dañ ànd ànd ak mbëri nga gis mu gé Balla Gaye maa mu ànd ak ay ñoom Petit mbay ak ak ak ñu ànd ak ànd ak président Macky Sall di campagne Modou Lo gis nga ko si campagne yi Modou Lo élection yi Modou Lo ko pour mu wàcc. doo doo mais campagne na. Mhm. Modou Lo dafa campagne campagne bu métti citoyen la. mais waaw léegi citoyen bu ministre mhm. xam ne ñoom ñoo ko def. ñoom mbër yi waaw ñoom ñoo dugg ci politique bi. li li yow li nga bëggoon mooy mbër yi bañ a dugg ci politique. ma ne ñoom ginnaaw dañuy bëre. Mhm. nañ ko centre wu seen bëre. wala bu fekkee da ngeen teg mouvement boo xam ne wala mbootaay goom wala dañuy aaye mbër mu dem si mbirum politique ngeen leeral ko waaye mun mun mënut nekk mbër yi bu ñu demee ànd ku leen neex jàmm di am duñ wax dara te booy ay amee ñu ne mbër muñ xam ne ci la bokk dañ koy sanctionné da ngeen koy mën a aaye aaye ko mën leen ko aaye ngeen bàyyi noonu li ngeen def ba leen ko te bu ngeen li tax rek ñu leen jiñ seen xel yi ngeen yore xel yeen boo waxee ñu ne xelu mbër nga yor yow léeg-léeg sax nga def loo xam ne dama naan la bàyyi sa xelu mbër mi kon mbër yi nañ xoolaat seen ah, tey dama la invité sama plateau pour nga ñëw ñu indi ay ñuy révéler ay ay ay ay waxtaan yu neex tey da nga ñëw di attaqué waa làmb ji. attaqué est-ce que xam nga yow lii nga def lan moo la ci mën a fekk. man dama bokk si ñoom xam nga nit loo bokkul. mais boo bokkee ñoom di nga leen xas. non damaa bëgg ñu arrêté yi ñuy def bu ñu dee politique nañ politique mais mënuñoo nekk di politique di campagne ñi bokk APR ñi bokk beneen parti ñi bokk beneen parti ah ba pare euh, Sonko koy garde ban parti la xam nga ko. xaw ma ko de. sooy bu xam na ko dina ñu wax la turam. champion bu mag la non sooy bu nekku fi. yoonam nekku ci sooy bu xam na ko sooy waa nekku fi rek waaw ñoom ñëpp ay mbër leen wër ñoom ñëpp ay mbër moo leen wër du dëgg kon nag mbër yi bu ñu leen wëree ñooña bu jàmm amee ñoom ñuy ndamu naan diw ku si jaaxle mbër yi ngay woo bu ay amee ñaam mbër muñ xam ne ci nga bokk mbër muñ xam ne ci nga bokki dara Modou Lo gis nga campagne Macky Sall dafa am campagne APR bay bëgg a dee liñ ko jox lépp gis nga ko dañ ko jox dara waaw ay otoog lu ne jox nañ ko ko nga naan moom Modou Lo Modou Lo kay si campagne yi ah Assane waay yow non sama sama émission tey vraiment dama ñëw ba fii Assane xaw ma dammate quoi ndax dama amoon envie ñu ñu toj fi mais moom dafa mel dafa am lu mu guuxaloon mbër yi non Assane Assane Assane boo amee problème làmb ji boo amee problème mu mbër yi ministre bi nekk bi nekk Medina Gris moom la àndaloon di ko jàppale mais ànd ak moom politiquement bokkul ak moom nga ànd ak moom di la lan politique lii ñu doon def nii loolu politique la mais yow dégg naa la fii ngeen lii du politique xale yi ñoo waaj di régler seen problème non non la amoon fee laa wax la amoon fee yow est-ce que ñiy dee ci ñi dee ci événement yi yëpp gis nga ku mat 65 kilos dee ci wala 90 kilos man gisaguma si ku dee gis nga ku gisoo ko ci ku dee événement bi laa wax ni événement bi waaw manifestation yi amoon fan yi waaw gisoo ko ci ku ku dee waaw nañ tourner page boobu nañ nañ tourner page lan moo taxoon ma invité la yow dégg naa daa nga. suivre dégg naa na ñu si dee. kilo. wax dëgg yàlla gisuñu ko ma si boo xamante ni war nañ ko peese mu na nga du ma dama dégg naa daal waaw moo tax man la tournel de man sama bopp champion la champion fan fan fan fan man réew. nga ni man réew bari na man mu bëri ay mbappat man ñun buñ masaan liggéey ba pare. Assane non man dama bëgg mu sérieux bul ñëw bu ma la invité. man xam nga man yàq sama plateau waa déglu ma xam man dama lay wax bàcc. ñii di ma seetaan ñi ñi ëpp xam nañu ma xam nga ñu si bëri bëri nañu man ñenn ñi seetaan nañu ma te musuma am defet te benn mag si nit laa amee ku ma masa jox sama tànk bi dëpp naa la. yow mi wallaahi dama fenn commentaire yi da gis ku ne ku ko dëggal. xay astaghfirullah mbokk yi ñu ngi leen di delluwaat di leen nuyu bu baax a baax yéen ngi seen émission bu mag bi di dongali di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ndax am na solo ndax vraiment comme ni ñu koy waxee rek euh, peccum liir bu neexee mbay nday jaatee ci mbagg ya waaw Lac la mais nay bëree ndax ba mu ñëwee si lamb ji ba léegi amagul defet Lac 2 waaw man gisuguma defetam noo a ko daan defetam nu ëmmat seen a ko daan man laa la wax gisuguma defetam si lamb ji c'est-à-dire lu tax nga wax loolu dama koo gisugul mu daanu waaw ah, jël man ah, maa ko gis kay ndax maa ngoon cee sàpp. deful recours. de bu defee recours dañ ko war a kase. maxi nit la maanaam kon comme euh, jël ba leerul nga bëgg a wax. am na laa dëgër de kenn daan ko ko si làmb ji baa ma koy gis man. Ah. ko. ko ko daan léegi lan nga bëgg lan nga ko bëgg a wax yow. mu bëree bu leer am. mais nit booy bëree ak moom te bëreewul di défendre doo bëri du am. déet bëri nag sa waay. Hmm, ñaara koy def doo ñëw jébbalu nag. doo ñëw ni kaay daan ma. ah kon yow lu kon loo koy conseillé naan ko na bëri. ndaanaan la li muy def nii kay bëri la. waaw baax na. waaye dañ ko daanagul daanagun ko. ah waa dina leer parce que moo ko ëmb seen seen combat taxaw na te seen premier combat xam nga dañoo match nii loon. xeex xeex bu métti deuxième combat bi ñu mag dafa daw coppati tànk bi Lac de yaakaar na Eumeu da koy ngóobu. dugg moom tuur. tuuru ko ah, déedéet déedéet déedéet non ah, non. ah fii la teg Lac de Guiers dafa teg ange dafa teg teg ange. Lac de Guiers teg na ange. waaw ah, non non non Assane bu fekkee yow yow déglu ma yow da ngaa yow da ngaa far ak Lac de ñëw sama plateau bëgg wane sa par wala lan la man de xam nga Lac de Guiers xamuma ko waaw mais man li ma gis rek laay wax waaw non yow ndax man na maa seetaan laa yow doo arbitre dafa naag man benn déglu ma doo juge gis nga doo reporter Moustapha Gueye xam nga ko ah, sama grand la Moustapha Gueye laa mas a faral si si làmb mhm. moo ma daan jaral war aw fos mhm. di dem dëkk ak dëkk di seetaani télé bëtëri Tafa Gueye waaw moo ma mhm. jaral ma mu daanu may jooy wala mu daanu may baña a reer bi ma bi ko kenn xamee ci moom. Mhm. ba jox ma numéro téléphone bi ma ñëwee dakaar moom Moustapha Guèye dama ko daan woo. Mhm. ngir cofeel. Mhm. xam nga kalaasu soo yi bu léeg-léeg da leen di woo. di waxtaan ak ñoom ci cofee gi ngay am ci ñoom bu yàggee boo gisee ne oh sa waay damay remercier ak day kontaan da ngay dem ba doo tax Moustapha Guèye su ma demee ba koy jël ba koy woo téléphone su ma jëlee ak ni muy waxee xam nga nu ma mujj def ni ko Moustapha jërëjëf kuppe ko supprimer numéro téléphone am ndax lan ndax bëgguma cofeel gi ma am sama diggante moom hmm. daal di deñ hmm. moo tax ma supprimer numéro am ndax xam naa su ma ko continuer di woo dana ma négligé wala mu coupé ma wala nangam sama xol mën naa bon. Hmm. bu duutuma ko woo wala ma bañ. mais naa ne defaloo ko lu ko raw bu fekkee box man dama daan am lu ma daan daj ci moom moom Moustapha Gueye waaw non loolu benn beneen bi moo xaadim Ndiaye bi ñuy bëree fa ma nekkoon ñu doon gas euh, ak kàmbu. Mm-hmm. ñi naan xaadim ak Moustapha. xaadim mm-hmm. ak Moustapha ñii ñii am lu ñu sa wax. Mm-hmm. ni xa kii kat xaadim la tudd naa nga man leen ma Moustapha moo superviseur xaadim. bu ñu dugg sax ci affaire yooyu noonu. lim ma jaraloon moo bari. c'est-à-dire yow li nga ma bëgg a wax ni lépp su ma ko déggee mooy non écoutez dama ne écoutez écrit face si boppam non déglu ma non bul tudd benn ma écrit déglu ma dama ne li nga ma bëgg a wax lépp su ma ko déggee mooy yow daal yàgg nga suivre làmb mais Fass rek. la mas waaw nga mos a supporté. kese d' accord kooku ku ne sañ na ni kon mais li nga li ma wax leeral si laada guerre laal la. Uh-huh. Uh-huh. man amul menn mbër moo xam ne ni jaral na ma ay génn ay sarax ak yooyu. non xam nga Lac de Guiers mi ngay wax naan na bëre. mais Lac de Guiers damaa gisaguñ mu daanu. waaw déglu ma Lac de Guiers mi ngay wax naan na bëre dafa défensif ba mu ëpp. mais noonu la. Eumeu Sène mi muy bëreel dafa nekk mbër bu offensif Eumeu Sène bu léewtoo inde souvent da lay tooñ yéen ñaar ngeen daw daje wala mu daw jël la wala mu tooñ la nga ñëw yéen ñaar ngeen jàppante. loolu tax seen béré mën na yàgg comme mën na bañ a yàgg ndax boo xoolee ñaari yoon lañ béré Eumeu Sène Lac de Guiers ñaari yoon lañ béré seen combat bu njëkk ba gis nga we xat la def Lac de dem na jëli Eumeu Sène dem na jëli ak blessure yi ci am yëpp deuxième combat bi bi ñu ñëwee tamit gis nga ko arbitre dafa soufflé Eumeu tooñ ko Lac de Guiers remise ko bi ko Lac de Guiers remisee sax dem na dem na ardo bi ne takk rek Lac de Guiers da koo remise Eumeu dem gémmiñ gi bi mu ñëwaatee ak Eumeu Sène mën a béréem ak Eumeu am ay médailles d'or yu bëri bëri fi ay combat daanan ama seen bëri naa ñu bëri. est-ce xam nga ni Sa Ndiogou mbër la woon. Sa Ndiogou man. sama combat waay sama sama sama làmb waay nga may tuddal ay Sa Ndiogou. Sa mu nekk mbër. ah da koo dégg dong de wax dëgg yàlla man damay dégg rek moom dégg naa mbër la woon. Sa Ndiogou mu benn. mu masaan ñaro ba pare mboolu. Sa kan kan la mën a daan. sawaay fi nekk nii yaa ngi nii xam nga mënutoo daan kenn te yow dégg naa mbër nga woon maa ngi woon ci point bu am solo muy Eumeu Sène Lac xam nga Eumeu Sène Lac ñoom ñaar seen béré bu ñu xeexee mu neex bu ñu béree mu neex parce que Eumeu Sène pied droit lay teg Lac de Guiers lay teg ku nekk dangay jot sa morom boo déclenché coup boo dóoree da nga koy jot ku ci dóor sa moroom da nga koy jot te bu nee daw ni rénkum ñaari koor yi dafa xaw opposé ndax Eumeu Sène tuuti Lac de Guiers Lac de Guiers di moins moo sut Eumeu Sène mais nag bul fàtte ni Eumeu day ndaanaanu béré poète la ci béré su doon béré dañ koy bind dama naan Eumeu Sène poète la écrivain la. bëri moom amul ndaanaan bëri sens la rek. non bëri ndaanaan la. Eumeu Sène euh, euh, ma Eumeu Sène xoolal Eumeu Sène ci lenn ngemb la duggee géej waaye daan fa ñëpp. dama la wax rek sens dafa bëri dama la wax rek dama lay leeral da nga ndaanaan la man la ndaanaan amu si sens ak sa bis. Mhm. waaye ndaanaan amut ci bëri. loo mën a mën a bëri mën a bëri boo ñëwee tey ji da nga tase kenn yaa ko dàq bëri fuuf mais jël bu ñaaw la lay daan. waaw mais kon sa bis day am ak yooyu de mais xam ni diw de mën naa bëre. waaw mën a bëre xam nga yow am na ñoo xam ne ci làmb ji wóor na ni dañoo mën a bëre. mbër yi fi nekk yëpp maa leen dàq bëri mën nañ maa ëpp nag mbër yi nekk si làmb ji ñëpp. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant vraiment euh, désolé ndax tey jii sama plateau dama fi invité woon baay Assane pour xam nga ndeysaan moom comme que yàlla dogal na xel boo ci xalaatee dara da nga war li nga xalaat souvent nga segg ko door a wax mais moom lu génn ci xel mi rek mu wax quoi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu a baax mais di leen wax ne leen combat yu neex taxaw na nag Eumeu Sène Lac de Guiers la Moustapha Sine Moustapha Tine ak xale bi di Boy Niang combat la muy ñaari corps yu opposante invité naa fi Moustapha Tine dinaa dem invité Boy Niang incha allah euh, Ama Balde Mamadou Lo combat la loolu njaar ndéem la ndax day ñaar ñu nammante ba pare Ama Balde dafa nekk xale boo xam ne nii saa yu moom du xam ëllirub gumba la yor waaye nag ne nii moom it Euh, su ma doon wax ñi dàq bëri ci làmb ji ci laa koy boole ndax tolul ni ñoom waaye mu ngi leen di daan muy Mamadou Lo boo xoolee ñi mu daan ñëpp ñu ci ëpp ñu ci ëpp ñoom ñoo ko ëpp mais xereñam ak mën a béréem moo ko yóbbu fi fi mu toll tey ba mu doon roi des arènes kon combat yu neex taxaw na en tout cas li ma leen di xamal mooy euh, séntu leen ñu séntu leen ñu yéen ñëpp direct yu am solo yi ci làmb ji ak invité yu am solo yi commentaire yi ne woon naa leen mbër mu ngeen bëgg mbër mu ngeen bëgg ñu invité ko ci comment ci tudd ko ci commentaire yi Siteu tamit gis nañ ni kombaam taxaw na ak Papa saw sita di xale boo xam ne ni bi mu ñëwee Lansar fekkul woon Lansar rafle ay mbër ñu ngi nuyu suñu grand max Mbergane ndax bi muy ñëw Lansar booba Tidiane Faye nga fa Tidiane Faye doon xale boo xam ne ni keroog jël bi mu daanoon Jaguar Kaolack ba léegi nit ñi fàttewuñ ko da kaw bravolé nees tamit gis nga ngeen fu mu jaar nees ñu bëri bëri naa ak ñoom Ama Baldé mii bi mu nee juux ci làmb ji bëgg a di të di të di të ba ne juux ci biir mag ñi neesa ko njëkk a freiné ak ñoom ne ko réel xale yooyu yëpp mais Siteu bi mu juuxee seen biir phénomène la daa ñëw indi lu bees lu nit ñi bëriwuloon lu ñu xam ci làmb ji ndax Siteu day ñëw signature am bu signé da ngay xam ni vraiment kii ku am lu mu gëm la bu ñëwee ñëw ci làmb ji day fecc léeg-léeg ba nit ñi dañ koy mere dañ ko naan balaa ngaa béree boo ma di nga sonn mais su béree it nga kontaan moo xam dañ koy daan moo xam da nga dafa daan kon muy xale boo xam ne moom it ku bàyyi xel la waaye nag daje koo xam ne ni piment la muy Moustapha saw waaw di Papa saw di xale boo xam ne nii Fass la yaroo Fass la gimmee bokk nañ bokk na ci xale yi gën a technique ci làmb ji muy Papa Sow jóge Fass nag ber écrim combat bi di ñëw war a doon premier combat am kon combat bu combat bu neex lay doon nañ ko xaar en tout cas li ñu leen di wax mooy euh, mbokki dongal yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan nañu vraiment ci topp gi ngeen ñuy topp ndax dongali nag dañoo fas yéene. bu at mi jeexee mu doon première émission bi jël pee ci làmb ji incha allah te dina ko doon ndax yéen yéen a ñuy dooleel yéen yéen a ñuy dooleel yéen ñuy suivre dee leen ñu gën a encouragé te mbër mu ngeen bëgg ñu invité ko wax leen ko seen i commentaire dinañ déplacé wu dem ba këram invité ko wala ñu invité ko fii suñu plateau yi waxtaan ak moom ci kombaam ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon mais di fàttali ci kanam tuuti incha allah soxay bu dina fi invité oustaz bu bu bu bari xam mu waxtaan. ci li nga xam ne ni mooy actualité bi ak waat yi ndaw si aji sarat génn bëgg koo waatloo kii di Ousmane Sonko lan la ci diine wax guddi gi it ñu ngi leen di dig daje ay direct yu am solo fii ci GCB info asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dongali rek la